الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala moom mi nga xam ne mooy boroom lu mën a doon mooy yónni ay ngelawam ñuy béggalaate ci yërmaande taw ba mu war a wàcce mooy wàcca ndox di ci dundal lu ko neex ñi ngi seede ne kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom amul kenn ku bokkaaleeg lenn mooy borom kàttan gi ci lu mën a doon di seede ne suñu yonent yàlla muhammad mooy jaam bi mu yónni woon ci ñun mu war ñoo waar war ñoo bégal war ñoo xub yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy topp ba ilaa yawmiddin mbokk jullit kenn ci yéen réerewul fan yii la nga xam ne ñoo ngi koy dund ci am ndox moo xam ne suñu borom yàlla wàcce na ko ci ñun na doon suñu réew la wala mu doon ci réew ya nga xam ni lu bari ci àdduna bi loolu nag mbokk jullit da ngay gis lu bari ci nit ñi duñu xam lan mooy xikma yàlla ci loolu bal am na ñoo xam ne jàpp nañ ni ab taw moom njëriñam rek mooy yàq waaye mbokk loolu mooy réere sunna yàlla ci kaw suuf lenn ci ay soxna dañ ma nettali ne dañoo dem géej asamaan bi xiin mu ne ay yàlla yàlla na taw fekk ñaari xale ñi ngi daw romb ko kenn ki na ko waaw sama yaay taw moom luy njëriñam keneen ki màndal na ko xanaa yàq ay dàll rek yàq dal dal moo njëriñu taw ala kulli xaal mbokk jullit ñooñu xamuñu soxna si na leen déet man dama am ak jur goo xam ne dama koo bàyyi ca njàmbur ca bu tawul ngooñ du am ca bu ngooñ amul dañuy faatu loolu ci ab gàttal waaye ala kulli xaal mbokk jullit suñu boroom moo bàkku di bàkkoo naka neex mu ne xool leen man may yëkkati la nga xam ne muy niir yi te buñ la waxoon ana ban processus la taw di jaar fa suñu boroom commencé indi ab jantam indi ngelawam mu daal di génne la nekk ci géej ga ci évaporation ndox yi daal di jóg jëm kaw suñu boroom jël yooyu oxygène boobu ak hydrogène boobu jaxase ko boole ko ca kaw ak lam koy booleel ba mu nekk ay xiin yoo xam ne ay milliards lay doon ci ay tonnes ci ay ndox suñu borom yàlla def ko mu nekk ay montagne de glace yéen a ngi gis en Italie ak un peu partout ay tawi glace yi fa doon wàcc noonu la ko yàlla waxe min jibalin fiha min barad suñu borom commencé di ko wàcce di ko sotti fu mu ko neex di ko féewale ak fu mu ko neex ci ay jaamam loolee doomu aadama yépp buñ daje woon bëgg a créer ab taw mënuñu ko bëgg a créer benn tokk ndox mënuñu ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag moom mi nga xam ne moo moom gàncax gi moo moom bàyyu may ku nekk fa nga soxlaa dana la fa yóbbu xatta jën yi nekk ci biir géej dañoo soxla ndox moo xam ne ndox bu neex la borom boobu ku nekk mu fekke la fa ak la nga xam ne moom nga yeyoo wàcce ndox moomi mu nekk loo xam ne ca lay dundal lu mu mën a doon doomu aadama bàyyi ma fu ndox jeex dund jeex fa ba moo tax tey scientifique yi heure bu ñu demee di xool ay planète ci kaw suuf la ñuy jëkk a xool mooy ndax am na ndox su fa ndox amee ñu jàpp ne dund mën na fi am su ndox amul donc abadan dund mënu faa am moo ko ndox maa ngi noonu suñu borom yàlla def ko muy li gën a am solo lu doomu aadama di am ci kaw suuf doomu aadama heure bu amee ñaari soxla rek xamal ne ndox am waaye bu dox ñàkkee soxla amatul lu dul ndox ndox moomee nag mbokk julit moom dong moo ko mën a wàcce moom dong moo ko mën a wattu tey ji yow waa ndakaaru di naan la diguière wala di naan ay château sunu borom yàlla moo créé ay dexam moo créé ay lac moo créé ay napp ci biir suuf si ba napp yooyu ñu cee mën a génn ay teen di ci mën a génn ay château mbokk lii mooy ndox ay xéewalam kenn mënu koo natt bokk na lañ ca mën a xam mooy doomu aadama yi ci la ñuy naan doomu aadama mënul dund sans mu naan doomu aadama yi ca la ñuy sangu doomu aadama yi ca la ñuy nekk di tabax seeni kër doomu aadama yi ci la ñuy fóot di ca roose seeni garab di ca nandal la nga xam ne mooy seeni jur mu nekk yiw wu rëy boo xam ne mbokk taw léppam xéewal la bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma sànd ak sahaaba yi bis muy taw mu summi mbubbam ma ndox mi sotti ko ci kawam ñu ne ko lii nag yow mi yàlla yónni mu ne lii day barke la boo xam ne mi ngi doog a jóge ci kaw asamaan tey jii bokk na lu médecin yi di wax amul lenn lu gën a baax ci protéger doomu aadama ci yenn feebaru dermatologie yi nga xam ne day am ci ci der lu mel ne ndoxum taw sunu maam yi ku xam seen expérience daanañ taataan ndoxum taw ci yeey gi mooy ndox bu amagul contact ak lenn di ko naan directement ndax nañu yégoon ne loolee dafa doon loo xam ne ni luy faj la mbokk ndox kon mi ngi noonu suñu borom yàlla def ko muy xéewal zahiran wa batina borom bi ne waaw xool leen ndox mi ngeen di naan ndax yéen a ko wàcce am man maa ko wàcce moo ne su ma neexoon day def lépp mu wex xat comme ndoxam géej lu teewoon ngeen sant seen borom mbokk sant yàlla ci ndox mooy nga yëg ne xéewal gu rëy la goo xam ne moom dong moo ko moom moom dong moo koy joxe nga yëg ne xéewal googee da nga ko caa war a sant sa làmmiñ waaye it sant ko ci lan moo ko ndox moomee ñu bañ koo yàq di ko jëfandikoo rek na nga xamee ne nii noonu la ca suñu soxla toll yar ci suñu njaboot heure boo gisee ku nekk ci robinet ba muy xararar xararar bu dul jeex xamal ni ci kaw suuf am na koo xam ni la ko yitteel mooy kaasum ndox bu mu naan ci mënu koo am kon bu la yàlla ubbilee xéewal santal yàlla ci loole bokk na tey ji ñii nga xam ne ñooy waa seen o ñii jël ndox mi dañu koy indil suñu kër yi chaque fin de mois ñu présenté ñu facture muy sant gañ leen di sant ca fay fay leen seeni facture am na suñu borom moom lan la bëgg moo ñu yëgal ni xéewal la gu màgg gu bàyyi ci moom sant ko ca moom dong loolu moo ko ñu bàyyi ci xel bu baax tey buñ ñee ndox xéewal la dana amoo ah ku ne waaw catastrophe yi nga xam ne dana koy indi nag mbokk catastrophe yi ndax di indi bàyyi ci xel ñaari mbir yi ma lay wax benn bu jëkk ba mooy suñu borom nee na zahara al fasaadu fi l barri wal bahri bi ma kasabat aydi nnaas li yuziqahum baada alladi amilu laallahum yarji'un catastrophe day feeñ ci jiiri ji ci géej gi lan moo ko waral mooy doomu aadama yi li ñuy liggéey tey jii mboolem scientifique yi ñu ngi wax ne li nga xam ne moo indi changement climat bi mooy li ñuy tuddee effet de serre yi nga xam ne doomu aadama yi ñu ngi koy génne ca la nga xam ne mooy seen usines yi ak seen machines ya ba tey da ngay gis lu bari ci doomu aadama ñi def combat pour loolu loolu muy benn waaye ñaareel ba la gën a indi catastrophe ci taw di wàcc di faagaagal ay doomu aadama taw di wàcc am doomu aadama yu ci amul lu ñu doy ba seen bay yàqu mbokk mooy bakkaaru doomu aadama yi moo tax suñu borom ne maa ko def ngir ñu dellu gannaaw donc heure bu taw amee doomu aadama yi dañoo waroon tiitaat tuubaat dellu ci yàlla mbokk Sénégal gi lu yàggul dara même ba ñuy Senghor catholique ba jiitee heure bu nawet ma san jot dañuy arrêté lépp loo xam ne am polo mi ngi noonu ngiree nit ñi doomu aadama yi dellu ci yàlla ngiree yàlla barkeel nawet bi mais loolu nit ñi passé nañ loolu te moo ne day yàlla kam yón jëkk a yónni di yonent yàlla nu wax nga xam ni mooy référence mboolem xeet yi ñëw ci gannaawam dafa waxoon waa xeetam istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili samaa aleykum midrara ay yéen saw xeet tuub leen dellu ci yàlla kuy balay bàkkaar la kon de dana wàcc ci yéen ndox moo xam ne midrara ndox mu tegaloo la ay yow gonoom ndakaaru xamoo luy taw waaye mbokk taw bi wàcc ci jamono mois de juillet ñu koy tudde tawu ceebo bokkul ak taw bi wàcc jamono ji di mois de août ñu tudde ko taw yu wax set bokkul ak taw bi nar a ñëw ci kanam muy taw sattumbar loolee benn ci ñoom bokku ci sa moom ak puissance ba ngay wàcce bokku ci moom ak temps ba nga xam ne moom ngay def pour wàcc loolu nag suñu borom moo ko calculer mi midroora heure boo xamee ni nag doomu aadama yi jaaruñu fi neex yàlla suñu borom yàlla daal di désorganiser loolu mu defoon jël la nga xam ne moom waroon a wàcc ci ay place sóob ko ci benn place ñooñee doon ñoo xam ne nii lu ñu lab lañu su ko defee première cause ci loolu nañ ko bàyyi xel mooy ay bakkaar lan moo waroon a tax di ñu musal ci ay inondation mooy doomu aadama yi di tuubaat di dellu ci yàlla rawatina la nga xamee ni nii moom mooy jamonoy nawet bokk suñu boroom li mu digge du deñ nee na walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamai wal ard walakin kazzabu fa axaznahum bima kaanu yaksibun su doonte ne ne waa dëkk bi gëm nañu yàlla ragal yàlla def ay ndigalam moo ubbi barkay asamaan ak barkay suuf waaye maadaama defuñu ko jàppe naa leen ci li lañ doon def looloo tax moo ko xoolal tey Dakar gi xoolal li xew Kër Massar xoolal li xew ci la nga xam ne mooy ay ñetti baax xoolal li xew ci la nga xam ne jàmm gën kaza wa kaza ay quartier quartier yoo xam ne nii nit ñi dem nañ bàyyi seeni kër ba ci lu mat cinq jours ci semaine taw bi passé dañ naan lu mu bon bon cinq morts am na Dakar kese waxuma nag pat Sénégal loolee mbokk lan moo ko waral mooy doomu aadama yi jaaru ñi fi neex yàlla jalla wa ala ab taw yàlla moo koy wàcce heure bu ko wàccee ci xikma la koy wàcce demal ci saxihu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ñuy nettali benn waay boo xamee ne nii dafa nekk ci àll bi moom rek muy taw benn xiin romb mu dégg benn baat bu naan ko ah toolu ah Samba Ndiaye ngi nii sottil fii mu ne xiin bi ñëw sotti ci tool bi paase wu ko continué dem waa ji jàdd ci dëkk ba ne waa kan mooy Samba Ndiaye ñu ne ko diw la mu ne ko waa yow nooy def ak sa tool mu ne ah man day lépp lu ma bay danaa ko xaaj ñetti xaaj benn xaaj ba ma sarxe ko benn xaaj bi ma dund ak sama njaboot beneen ba ma dellu ko ci tool bi mu ne ko maa ngi lay seedeel dégg naa ya suñu borom yàlla dégtal ma loolu mbokk loolu lum ñuy jàngal mooy waxuma dëkk yi waaye xatta quartier yi xatta tool yi xatta fu mu mën a doon amul benn ndox buy jóge kaw asamaan lu dul ci ordre yàlla la wàcce suñu borom yàlla moo ko jox ordre muy wàcc fa neex yàlla ci ndigalu malaaka yi nga xam ne ka leen jiite mooy mikail mikail alayhi salaam loolu mbokk lañu war a bàyyi xel bu baax am maa nag dana am jullit ñu ca faatu na am suñu côté Soudan gi ak fële la fa faatu kenn xamul nu mu toll waaye mbokk jullit yooyu ca faatu it nañu xam ne suñu borom yàlla day du neenal ji fi jullit yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na bépp jullit bu faatu ci la nga xam ne mooy am mbënd ay ci lapp géej laam ndox laam lu mën a doon da ngaa shahid loolee kon say mbokk dañoo wóore bég ci loolu mooy da ngaa shahid képp koo xam ne faatu na ci am ndox ñàkkul ñu ca yàqule na am des millions waaye nag loolu ñu yàlla digoon danaa leen nattu ci wàññi seen alal wàññi seen i bakkan su ko defee yow julit nga gëm ne na am taw day xéewal bu mag la lépp lu mu lor njëriñam mat na ko cent fois am maanaam su ma yàlla tànnee jël ci sama jegeñaale wala jël ci sama alal yàq ci sama mbirit nga ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tuubaat delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne daa xamoon boroomam suñu ay Aysa nee na heure bu mosaan xiin dootul am jàmm day dugg génn dugg génn ba mën a ko waaw yow bu xiinee nit ñi kontaan yow bu xiinee ngay mel nii mu ne ko ay Aysa xanaa gisoo waa aat keroog ba xiin ba jëmee seen dëkk ñu ne haza aridun mumtiruna xiin bi de daf ñu tawal ndekete ngelaw ba leen di alak moo ci nekk suñu ay Aysa nee na nag heure bu masaan dégg ngelaw li riddi bokk na lu mu daan wax sallallahu alayhi wa sallam allahuma inni asaluka xayraha wa xayra ma fiha wa xayra ma ursilat bihi wa auzu bika min charriha wa charri ma fiha wa charri ma ursilat bihi ay yàlla ngelaw lii yàlla nag ma may yiwam ak yiw wi ci nekk ak yiw wañ ko yónnee yàlla nag ma musal ci ayam ay bi ci nekk ak ay biñ ko yónnee heure bu masaan dégg asamaan bi dëmu mu ne subhaana allazi yusabbihu ra'du bi hamdi wal malaikatu min xiifati mu ne maa ngi tudd sant borom bi nga xam ne dënu gaa ngi dóor ngiree feeñal ak cantam buñ ko war a sant waaye malaaka yaa ngi sabbal ngir ragal ga nga xam ne dañ ko koo ragal sallallahu alayhi wa sallam heure bu commencé woon di taw daana ñaan yàlla allahuma sayyiban naafi'an ghayra dar ay yàlla yàlla na ko def taw bu ñuy jëriñ bañ doon taw bu ñuy lor heure bu taw bi masaan bari ba bari daana ñaan sallallahu alayhi wa sallam allahuma hawalayna wala alayna ay yàlla suñu borom taw bi yàlla nag ñu ko féewale yàlla na bañ koo xëpp suñu kaw ay yàlla taw bi yal na ko yóbbu ca tund ya yóbbu ko ca xur ya yóbbu ko ca taatu garab ya dajaloo lii la yonent bi alayhi salaam daan wax heure boo xamee ne nii mas taw na ba taw ba jeex sallallahu alayhi wa sallam lu mu daan wax mutirna bi fadlillahi wa bi wa bi rahmati ay waay tawlu nañu de ci ngeneelu yàlla ak yërmande yàlla xoolal sallallahu alayhi wa sallam mii soroyukaay yow julit fa asamaan bi xiine fa muy ngelewe fa muy dënoo fa muy tawee fa taw ba jeexe lépp mi ngi ànd ak loolu nga xam ne dara du ci hasard lépp or coordonna benn mbir la ba suñu borom yàlla organisé di wane xiiwalam di wane kattanam di wane xikmaam ci ay jaamam loo xam ne moom rek moo ko man su ko arrêté woon tey jii du États-Unis du Russie kenn koo xam ne nii mën nañ tawal la nga xam ne mooy waa àdduna bi looloo tax mbokk tey Dakar dund nañ semaine bii la nga xam ne mooy inondation yoo xam ne gars yi nan taw nañ ci benn jour boo xam ne bu ñu xoolee trois mois daaw tawu ko woon loolu kattanu yàlla dong la mën a doon yàlla moomu nag la ñuy ñaan yàlla bu ñu yàlla toppe suñuy bakkaar yàlla na yàlla jéggal ñu ci yërëm ñu la nga xam ne mooy desuti nawet bi yàlla na ko yàlla def xéewal ak yërmaande ñeel ñu mboolem koo xam ne nii faatu na ci taw yooyee yal na yàlla boole ko ci shuhada ya muy teral ci àjjana yu kawe ya képp koo xam ne alalam yàqu na ca yal na yàlla subhanahu wa taala wuutal ko loo xam ne nii mooy la gën loolee yal na yàlla defal ñu aafiya fi dunia wal axira boole ñu ci jaam yi yëg ay xéewalam jaam yi tudd ay xéewalam jaam yi sant ay xéewalam ci xéewal yooyu mu jagleel ñu ko àdduna jagleel ñu ko alaxira allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar subhana rabbika rabbi العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين